jamono ji li ñu bëgg yi ñu daal di koy bu dee Grand Yoff foofee mbindu maa nga mel ni tulleeg male bu dee Sigicoor foofee tamit mbindu nga mel ni tulleeg male waaye nag bu dee jëppal derkale foofee journal bi nee na ñaawlu nañ bu baax a baax li nga xam ne moo fa am ni banga bangi ci jëm ci wàllu mbind me yéen kaay gi de Le yor yor xëy duñu nan ñu en tout ci mën a dégg jamono ji xale yi ñoo ngi bindoo yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy wax ci procès en appel ko ci Ousmane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 am indépendance ci lu jëm ci wàllum production du médicament yéen kay gi de la point xëy wax ci LONASE ndax fa nii ñu génn dafa am juróom-ñaari ñoo xam ne ñooy liggéeyee LONASE juróom-ñaari agent ñoom nag dañoo tuumaaloon Lat Diop daal di wax ne ni mu yoree kër gii de LONASE maanaam jaaduwul la waaye nag kàddu yooyee nga xam ne juróom-ñaari agent yooyee wax nañu ko soo muy tuulee du leen jural jàmmoo ndax ci dàq leen la ñu jëm journal bi de la point xëy duñu xibaar naan ñu ci personnel bi am na ci kenn koo xam ne daal nay wax ne lii nga xam ne moom la ñu tuumaal Lat Diop dara amu ci waaye mbirum règlement de compte